ci kàddu gi mbokk yi am mbégte ak contentement bu mag toog ci Sidior FM di leen jottali xibaar yi guddi gi nañ leen ko waxee ca bopp ba rek la ñuy duggee ak yéen ci yaatal gi Ousmane Sonko leader bu Pastef yegsi na léegi ca këram nga nekkee ca cité kër góor gi ay euh, élément yu euh, gendarmerie nag ñoo ko daal di euh, jàppee ca dëkk bu nekkee ca Koungheul andi ko loole moo waral ba ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome yëkk ci ay kàddu ngir leeral ñu teelu ko gannaaw jokkoom ci téléphone beeg Ibrahima Diame. am lu am nga yelleef waaye tamit am nga àq sa àq nag boo koy laaj ñu war la ko jox li nga xamante ni mooy sa yelleef da nga war a samonte ak moom ba mu mat sëkk loolu dañu gis ni fan yii weesu leaderu Pastef bi dafa wax ni dina jóge Ziguinchor ñëw Dakar romb ci ay dëkk def fa ay dajaloo te amul benn yoon boo xam ne def na déclaration loolu moo doon sababu communiqué bi ma génnee démb ngir fàttali loolu ñu gis ni ci Kolda am na lu fa jot a am ci rassemblement force de l'ordre yi def seen liggéey euh, am ay jàmmarloo yu fa am ba mara day taal yi am kenn koo xamante ni faatu na ci ñuy jaalewaat ay mbokkam di jaalewaat ay am di jàmmam waaye tamit di jaalewaat waa Kolda yëpp ak di jaalewaat réew mi loolu nag dafa am responsabilité bu rëy bu ci état bi am ndax état day toog di seetaan ay nit di faatu wala ay yàq-yàq di am te du ci jóg loolu état du ko def li état war a def. mooy aar doomu aadama yi nga xamante ni ñu ngi ci biir réew mi yëpp pour aar boobu mën a am ci niñ ko yoon santé waaye tamit ni diggante nit ak nit war a dundee ci biir réew looloo waral ñu jël décision ni képp koo xamante ni yaa ngi def lu dëppoowul ak yoon wala wàccoowoo ak yoon ñu fexe ba loolu dakk dakkal bi nag dinañ tas rassemblement boo ko defee waaye bu ajoo ñu jël la yóbbu yóbbule sa kër ñu jël la yóbbule sa kër tamit. Mhm. kon du ko ne da ngeen koy jàpp waaye da ngeen koy gunge yóbbu ko këram. mu ngi këram actuellement heure bi ñuy waxee ni mi ngi këram. leeral yi ministre de l'intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diome aju ci Ousmane Sonko mi nga xam si kon mooy leader bu Pastef daan nañ koy kon jàpp andi ko euh, këram ba yegg si na kon ci këram euh, gi nekk fii nii ci diwaanu Ndakaaru euh, ca cité kër góor gi parti bu mu jiitee di Pastef ki yore kàddu ga di maître Abdoulaye Tall moom nag daal dinay naqarlu ni nu ko tegee loxo ñu teewlu ko moom it gannaaw jokkoom ci téléphone beeg Ibrahima Diame. Ousmane Sonko arrêté nañ ko. gendarmerie nationale ñoo fële ca Koungheul lañ ko arrêté te jamono ji ñu koy arrêté mu ngi ànd ak garde rapproché jamono ji ñu jotee information bi nag vérifié nañ wax nañu ñu nee nañ Ousmane Sonko mu ngi jóge foofu ñu ngi koy conduire di ko indi Dakar mais li ci am solo mooy ba am solo mooy jamono ji mënuma laa Ousmane Sonko si ban état la nekk xamuñu ndax mu ngi dund wala dundul xamuñu nag ndax fuñ ko gardé xamuñu yoon condition la nekk ma jàpp ne bu ñu nekkoon si état b sérieux dès l'instant que arrêté ko ku ñu fekk Koungheul mu nekk ci otoom nekk dans la normalité di di di di s'acquitter de sa de son droit ou de ses obligations politiques bu ñu ko arrêté li ñu war a njëkk a def mooy notifier de son droit ne war war ne que am nga avocat am nga droit am avocat comme ça à la minute qui suit ñu mën a ñu mën a mu mën a entrer en contact ak avocat avocat fu mën a nekk ñu fekk ka fa pour mu mu saafanteel moom pour xool naka la ñuy def ba trouver une solution mais jamono jii daal li ma la mën a wax mooy Ousmane Sonko. arrêté nañ ko jàpp la nekk kenn xamul fan la kii moom loolu nag mu ngi wane ni nekkul ci état de droit boo xam te ni xam ak yàlla Ousmane Sonko dinañ ko ngeen fas yéene def kon. waaw li ñu fas def mooy ñun avocat yi ngi waxtaan nañ suñu biir ñu ngi xool li ngi wër pour xool fan la nekk pexe bu ñu am ñu ngi koy def pour xool Ousmane Sonko ci ban condition la nekk ci ban état la nekk. kàddu yi maître Abdoulaye Tall yi mu yëkkati ko kon laata ñoom mu leen di wér ne gendarmerie andi na ko kon ba ca këram xibaar yi ci mujj kon ci ay leeral moo di ne leader bu Pastef di son ko ca Koungheul la ko gendarmerie jëlee andi nañ ko kon ci euh, këram gi nekk fii nii ci cité kër euh, góor gi. je voudrais d'abord euh, préciser que nous sommes dans un état de droit et qui dit état de droit dit des règles qui doivent être respectées aussi bien par l'État que par les citoyens. Vous avez entendu tous, euh, il y a quelques jours, le leader du PASTEF, à partir de Ziguinchor, déclarer qu'il va faire une caravane euh, au cours de laquelle des rassemblements seraient organisés. Nous avons vu que dans le cadre de la première étape, il y a eu mort d'homme. La responsabilité de l'État étant engagée dans tout ce qui est garantie de l'ordre public, nous ne pouvons euh, des personnes qui, pour euh, quelque raison que ce soit, ou pour l'expression de quelque opinion que ce soit, faire des rassemblements sans pour autant que les règles euh, minimales d'encadrement soient respectées. Et pour ce faire, il fallait d'abord faire une déclaration, premièrement. Deuxièmement, l'autorité administrative compétente doit vérifier si toutes les conditions d'une bonne organisation d'une manifestation sur la voie publique sont réunies et le cas l'autoriser. Et troisièmement, euh, il faudrait, dans le cadre d'une enquête administrative, que le déclarant lui-même veille à ce qu'il n'y ait pas de trouble à l'ordre public. Toutes ces conditions que je viens de décrire ne sont pas réunies pour des processions de la nature dont a voulu euh, qu'ont qu voulu organiser donc le leader du PASSEF et ses partisans. Pour toutes ces raisons, j'ai sorti hier un communiqué pour rappeler les règles euh, qui gouvernent la matière. Malheureusement, on a vu que euh, les, les, les euh, donc militants du PASTEF ou bien leurs leaders euh, persistaient dans cette voie. Et on a vu les conséquences que cela a entraîné. Il y a eu mort d'homme à Kolda. Est-ce que l'État va rester les bras croisés pour constater des morts ou bien euh, des blessés, des pillages ou des dégradations de biens appartenant à l'État ou bien appartenant à des privés Mais la réponse ne peut être que négative. Pour toutes ces raisons, que ce soit le leader du PASTEF ou un autre leader, si une violation est apportée à la loi, l'État a le devoir de mettre un terme. C'est dans ces conditions précisément que décision a été prise que s'il y a une intention de faire une procession, que nous y euh, mettions un terme dans les formes appropriées. Et on a pu, de ce fait, encadrer le leader du PASTEF jusqu'à son domicile où il a été déposé. Au moment où nous parlons, il est collision supplémentaire. Euh, lorsque, effectivement, le, le, véhicule dans lequel il se trouvait, euh, à bord duquel il se trouvait, a été contrôlé, il était en compagnie d'autres personnes. On a pu découvrir des armes à l'intérieur du véhicule. On a pu également découvrir euh, des, euh, des pierres et puis des billes euh, qui peuvent être utilisées dans le cadre de man manifestations contre les forces de défense et de sécurité. Mais pour revenir précisément à votre question, non, Il n'a pas été arrêté, mais il a été encadré et conduit à son domicile.